asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaawu ñaari fan ci safar muy weeru diggi gàmmu di ñaareelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ñaari fan bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci gaawu bi rafet na li ci gën a mooy ku ca watu li ñu ciy caati rek wàccandiku moom gaawu mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanuk bis bi yow sunu boroom yàlla nag ma defal njaboot gu baax yow yaay aji nangu ñaan ji rabbi habli min ladunka durriyatan tayyiba innaka samiu duaa rabbi habli min ladunka durriyatan tayyiba innaka samiu duaa xadiisu subis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am nañ ñeenti jikko yoo xam ne ku mu nekk ci yow lépp lu la faat ci poñu xiitum àddina amul solo te mooy sàmm kóolute ak dëggu ci ay wax ak rafet jikko ak fegu ci ay ñam maanaam di dundelu lew xadis bi ahmad génne na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam arbaun ida kunna fiika fala alayka ma faataka min addunya waxtu dana tàbbi 5 waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent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 soo ko féetee gànnaar wala saalum téeméeri kilomètres dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 6 heures 54 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñeent di so 19 heures 24 juróom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñeent yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin